Merci de nous avoir suivis, amis internautes de Dental TV. Assalamu alaikum, bonsoir. Quel plaisir de vous retrouver, également quel plaisir de venir vous servir comme vous le savez toujours man di jeekum dama len di le temps ak actualité fait sur la Dentale TV la télé tout à fait pas comme les autres mais dama ciy ànd ak tonton waagaan ci li nga xamanteni modi cadrage mais de nuyu képp koo xam la présentement yaa ngi ñuy suivre diko dama koy def bref rek dal diko commencer ci information bi nga xam ne jot nañ ko même pas cinq minutes euh, ki nga xamanteni modi moo di Ngagne Demba Touré Ngagne Demba Touré nak mu nek avocat euh, monsieur Ousmane Sonko

raw vous parle euh, mi ngi ci loxoy yoon waa dégg ñoo ko jël si euh, ci këram yóbbu ko fale fi nga xamante ni prison di ko pour l'instant euh, jot nañ quelques ci informations yi nga xamné mo waral ñu daal di ko jàpp ndax bimu ñëwaaté Sénégal ba légui dossier am lire nañ ko mais bon motif yu bari motax ñu ñëw jël ci ki nga xamante modi moo Ngagne Demba Touré fi ak demee wala fi ak ci kanam tout inshallah buñu amé motif yu mu gëna lèr leer dinañ leen ko indi fii ci Dental TV di buñu xé ci lolu dañuy ñëw di di vite fait si euh, euh, waa aar suñu élection waa aar suñu élection nag Nous euh, avons organisé un mars vendredi bi passé mu euh, am zéro blessé zéro mort mais également mars bi dañ ko autorisé qui ci euh, préfet préfet de Dakar Nous avons autorisé une élection, eu suñu élection dafa am lettre pour que le président de la république son excellence monsieur Macky Sall di wane élection yi a tenir le 3 mars pour l'instant Macky Sall wala état revenir sur ci lettre Bobo, mais à ce qu'il paraît jot une information bi waa Sénégal nous ñu euh, euh, le président de la République son excellent monsieur Macky Sall mu def élection yi le 3 euh, mars La décision est de ci la République du Sénégal monsieur Macky Sall pour nous génn dans communiquer l'élection yi kañ Inch'Allah, nous TV à tout instant dañ les di luy li temps ak actualité également du coup information bu wàccee rek incha allah dina leen ko indil fii buñ paree ci loolu ñu jàll directement si étudiant bi nga xam ne mu ngi nekkoon réanimation durant étudiant UGB bi nga xam ne mi ngi nekkoon euh, réanimation durant mars yi nga xam ne manifestation yi nga xam ne euh, jàll na euh, boobu léegi nag on n'avait pas de ces nouvelles mais à l'instant tey si matinal lañ mujjee jot information que moom ñàkk na bakkanam ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax yàlla na ko yàlla yërëm en paix alors bu ñu génnee ci loolu ñu ñëw ci actualité bi nga xam ne mi ngi mi ngi mi ngi lëmbee Sénégal bu ma actualité bu lëmbee Sénégal comme vous le savez euh, Soul Beng artiste guinéen bi nga xamné dafa waroon ñëw euh, Sénégal di ko euh, euh, ñu japp ko fële ci aéroport dal di vérifier li nga xamante modi ay bagages am di ko contrôler comme nuñ koy défé chaque passager di ko gis nañ tan yi loolu indi na problème ndax moom mi nga xamné moy artiste guinéen bi di euh, Soul Beng dafa communiquer dafa def ben vidéo bi mu nekk aéroport di wane ni ça fait la deuxième fois bu ñëwé Sénégal euh, policier ni lañ koy def di ko di sonnal ci aéroport aéroport bi diko nag gis nañ Guinéen ñenn si Guinéen yi gën nañ di communiquer di wax di wane ni carrément sénégalais euh, police Sénégal euh, li mu def nii yoon la mais am na ñenn si ñoom ku si mel ni euh, Mako saw Makoso nekk benn euh, influenceur boo xam ne mu ngi ci TikTok bi général Makoso gis nañ limu wax sénégalais mais di ko ah ku am kudd do làq ndax gis nañ tay Adamo mi nga xam ne euh, dugg na ci live am wax ko lu nek ah Adamo tamit gis nañ ni mom à chaque fois day daldi protéger li nga xamanteni modi moo day protéger li nga xamanteni modi président am euh, combat bi mu def ni nak suñu combat la ñun ñep ndax ci commentaire Adamo yi gis nañ sénégalais ñu koy féliciter bu baaxa baaxa baax baax ndax je vous rappelle même pas un mois amna ben conflit ben problème bu xawoon am entre les Guinéens et les Sénégalais euh, euh, si euh, durant Coupe d'Afrique bi batay problème bi encore ñëwaat moy problème suul meng mi nga xamné ne mi ngi won ci aéroport bi fa la amee woon ay jafé jafé mais c'est normal ndax même niko Adam Adama même bu dee Sadio Mané moy dugg ci biir Sénégal dañuy vérifier ay bagages am dañuy contrôler ay bagages am qu'importe ak mu mënti doon buy doy booy dugg ci ben pays dañu war contrôler say bagages mais yow bo duggee ci biir Sénégal c'est normal ñu contrôler say bagages nu koy défé suñu ay artistes nu koy défé suñu ay footballeurs nu koy défé suñu ay célébrités ñoom ñu rek nañ ko défé ak yow kon je vois pas le problème je vois pas le mal mais mom dafa def ben vidéo di victimiser wu euh, di gis nañ yenn ci artistes sénégalais également génn diko jëlal part sans autant ñu xam problème bi nu mu démé mais ñoom bu ñu demoon gëstuwaat tuuti xam affaire yi nu mu démé yaakaar naa dañ ko waroon euh, wax dëgg mais pas di soutenir du coup on gis naa ñenn ci influenceurs yi ñenn ci animateurs yi gën nañ wax mais également gën nañ nekk côté peuple bi gën nañ aussi jëlal euh, part euh, ci seen ay policiers ci seen ay gendarmes également de soutenir les sénégalais di ko ñun amuñ lu sénégalais yi amuñ également lu dul suñu ay hommes de terrain kon kenn wala benn nit bu fa fale bëgg leen dépasser ñun dañuy taxaw jaxalu ak ñom wax ak ñom di ko li lañ amone ci li nga xamante modi temps ak actualité di jàkko moo ci doon présentation bi tonton Wagan mo nekkoon ci li nga xamanteni modi quatre di cadrage bi di nuyu bu baakha a baax mo nami mon ami mon frère Max l'international Maguette maa ngi lay kontaanee depuis Parcelles Assainies sama chauffeur bi mais également un borom parking yi maa ngi lay nuyu dila la jaajëfal mon mi ngi liggéey fële si Sacré-Cœur 3 maa ngi lay bu baax mon ami mon frère Max alors c'était tout pour aujourd'hui merci à tous et à comme vous dans rendez-vous demain ici sur Dandal TV merci tonton Wagan merci